mbokk yi abib bi sifle waat na ci diggante Ardo Thiatou Fora bëre nañu léegi ba mi-temps Ardo mbokk yi am na trois avertissement Thiatou Fora Ardo ñoo ngay xeex jixaat Ardo Thiatou Fora Ardo da koo bëgg aspirer fi mu toll nii ndax li mu bëgg mooy Thiatou Fora wuyu ko ci nim koy woo mu daw jàpp ko ndax Ardo fi mu toll nii bëre moo ko gënal ndax fi mu toll ni loxo yi mënatul xeex gis nga baare rek la mën mënatul xeex moom Ardo ña nga ca ñoom ñaar pël Ardo door na ko door na Ardo eh xale yi dañuy jàpp def dóor ma dóor xeex bi bi taala pël xeex bi taala ñoom ñaar a ngi xeex ba tey fi mu toll nii Ardo Caatu Fora ñoom ñaari xale yi actuellement fi mu toll ku ci nekk mu ngi joxe li nga am ñoom ñaar ku ci nekk ma koy joxe waaye combat bi buy jeex ragal naa tànk koy jeexal waaw waaw daw jëli sa tànk moroom mu mbot la wala nga daw jëli sa tànk moroom dëj ko mu daanu lu nekk ngi ci biir. waaye nag boo xoolee ñoom ñaar bàyyi ji li dooley dooley dañoo xaw tolloo moo tax làmb ji xaw a yàgg. ndeysaan dañoo tolloo doole doole yi dañoo tolloo gabar yi dañoo tolloo taay bi dañoo tolloo. combat bi day uteeg yeneen combat yi ñuy tëgg ñaar noo kan moo tëgg lii. Mhm. parce que ñaari xale yi tolloowuñu diw moo ëpp doole. combat bi ñoom ñaar kenn ëppul doole sa morom. Ardo Thiatou Fora. neexoon nañ ñoom ñaari mbëri Ousseyn. combat bi amateur dañ koo bëgg. mais Thiatou Fora ni mu bëree bëgg naa ko. bu jàppee sa loxo dalay kal. ndeysaan. mbër day bëree tànk. sama xel dem na ci Doudou Sané. foog na jëli ko. Ardo ni mu duggee baaxul. Ardo ni mu duggee baaxul. na Thiatou Fora wala Thiatou Fora jàpp na ña ngay dina jeex ragal naa mu jeex. fàq na ko moom Ardo mu bañ. Ndeysaan Ardo Thiatou Fora Ndeysaan ñu ngi ci combat bi ba tey gis naa Abou Diassé ci ci meekaay Thiatou Fora waaye lekkatul naanatul fi mu toll mu ngay toog di taxaw Ndeysaan kot baa nga noonu kot Ardo bi moom sam ndaysaan moom it taxawatul toogatul te moo toog ci siège bi làmb nii la ñaari ndamay dugg waaye benn ay génn. duñ caaxaane bi tey. ndaysaan déedéet. Ardo lu mu a def ko. ndaysaan taxabal demul. ñoom ñaari xale yi. ñu ngi noonu Ardo ak Thiatou Fora. combat bi maa dina gaaw supporter Ardo yaa ngay tàcc ña ngay tàcc ndaysaan day ko abal ah, oh. na ko bu bañ ndaysaan kal na ko mbot na ko daan na ko ade daan na caatu daan na caatu foora ade daan na caatu foora jëlal coach ba jëlal jëm sama xel dem na ci caméra waaw président wala entraîneur yi xolal ma xolal la jëlal maardo kaago ndaysaan xool ko xool ko ndaysaan xool ko xool ko takk der yi puus leen. ndeysaan xale bi. takk der yi puus leen takk der yi dañ lay bàyyi ba ko jàpp la. ndeysaan dañ ñu la. muy def kàggu jëlal ma ko. xoolal muy def. jëlal ma bii daal manière bi xaw ma ban façon manière. kankura moom ak kankura la. daan na caatu foora. daa bëre daanu. jël na ay coup vraiment. Ah, dëgg la pël. ndeysaan xoolal ma xoolal ma la muy def. sama loxo mooy metti nag mooy metti dama si gaañu woon blessure quoi mais sant yàlla rek yàlla baax. waaw. fajoon nañ ko sax ba mu wér mais dañu si gaañuwaat dañ si gaañuwaat. waaw mais mooy loolu taw féex rek yàlla nañ ko yàlla saafara waaw loolu la demee. waaw caatu fora dama gis ni maa ko mën naa ko jam mu ñëw. parce que moom dóor bu méttee rek faaw nga def dara wut solution solution bi muy wut si laa ko bëgg na daan ko te noon la mujjee quoi. ah. lamb rek nañ bàyyi ak lamb rek. iso booy beeg taaw laa doon woo dafa mel ni caat moo mujjee teew man la taaw yaayam baayam a ama ay si caat du réew jàppee ma Mikael ndax jàmm gën attanul sama première taw tegal ma kaamil ma waat ni si te taalibe Bamba dama lay caw du man ak yow ni maag duma la yow ni nga man damay jaar rek jàll. attaqué koñe gañe xam nga bëre daan dem ñibbi ñoo di ma man dama lay kañe.